asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen dalal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois di remercier ñi nga xam ni si rubrique yu bees yi ñu ngi ñu may may doole ñu ngi seetaan di am contentement aussi tamit si bu nekkee benn affaire boo xam ne intéressé na la majeure partie des Sénégalais parce que la majorité gagne toujours vidéo yi nag dinaa si gën a farlu dinaa ko gën a def pour xamal Sénégalais yi parce que man jàpp naa ne nit kii lépp looy sol lépp looy jëriñoo lépp looy def rek nga war a xam nan fan la jóge ak lan moo ci nekk bu ëllëgee lépp loo xam ne def nga ko mooy maanaam choisir nga ko jënd wala choisir nga ko def loolu sa responsabilité la mais balaa ngay jënd dara je crois que ni l'important mooy nga xam lal la ñii naan nag soxalul Sénégal man je crois pas parce que tey jii bu la soxalul yow rek ça pas dire que ni soxlawul Sénégal bind tiitu bu rëy boo xam ni li may wax ci vidéo bi moom ngeen di gis foofu noonu boo gisee tubaab bu weex rek bul dugg bu fekkee sénégalais yi ngeen bëgg ñuy wax ci ñoom te may ñaan sénégalais yi ñuy open mind mooy maanaam ñuy xool feneen ñuy xam ci biti pour ëllëg ci biir bu dara amee rek ñu xam fu ñuy teg seen tànk ndax dinañ jàpp ni lu baax la walla lu bon la loolu mooy li nga xam moom moo di raison boo tax may def li xam moom moo ni vidéo pour xamal nit ñi produit yu ñu utiliser fan la jóge si yan anam lañ ko defee ak yan ñoo xew foofu noonu de ce nag dañuy ñëw wax tey si benn émission ñaar la sax mais deuxième bi moo ma ëppal solo premier bi dégg naa yu bëri mais deuxième bi moo gën a garaaw te foofu noonu tey ci nii mën naa ne en tant que jullit en tant que musulman am naa benn tiitaange mooy maanaam juum am naa benn tiitaange péché baakaar parce que Ahmed Khalifa Niass nit koo xam ni dafa am xamam xam mooy maanaam xam-xam la ñu mës won won ñu ay preuve won ñu lu nekk mais yàlla rek moo xam lépp am na yenn yoo xam ni nopp bu ko déggee rek day xam ndax lii baax na wala du baaxul weddiwu ma nag joxo yu ma ko dëgg moo tax tey vidéo bi nii dañuy concentré wu si ay question yoo xam ni ñun ñëpp war nañ ko laaj suñu bopp war na leer parce que plus ñuy jëm sa kanam plus débat islam di gën a génn plus muy am ay divergence te man de dama yàggab dégg ne Coran bi de benn affaire la li yàlla wax lenn la leer na nañ mooy maanaam amul kii indi xam-xam amul kee indi xam-xam ndax xam-xam boobu noonu jóge na déjà fa yàlla ak ca yonante ba nga xam ni moom moo di muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon tey képp kuy wax ci Coran bi ak ku mënti doon bu fekkee da ngay jàngale dafa war a nekk loo xam ni dafa war a jóge sax alxuraan dafa war a jóge ci yàlla dafa war a jóge sa la xam ni moom moo di sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu tellu benn moment boo xam ni affaire de diine comme rap comme hip hop ngeen jéggal ma si kàddu bi mooy maanaam ay clashante la ay man maa la gën a xam man maa la gën a sori man maa la gën a jàng di ko def nag si ay nit ñoo xam ni dañ nekk di sàkku xam-xam si ñooñu si Seneweb nag am na benn question bi nga xam ni euh, Toch posé na ko mu nekk question bu am solo ci xale mais Ahmed Khalifa Niass daf ko ne question boobu noonu du ma ko tontu question bu débile la te pourtant question boobu noonu mooy question bi gën a pertinante bi nga xam ne posé nañ ko si émission boobu noonu j'ai pas dit que ne ñeneen seen question pertinente parce que émission bu am na solo lool mais question bi nga xam ne moom la Toch posé mooy question bi gën a am importance foofu noonu mooy maanaam tey jii bu fekkee dafa am ki nga xam moom moo di oustaz Iran Ndaw am oustaz Aliou Sall am. Euh, Euh, Ahmed Khalifa Niass mu nekk ay nit ñoo xam ne ñu ngi leen di suivre ak beaucoup d'autres ostaas tey jii nii war nañ mën a am benn njàngat boo xam ni dafa war a niroo li nga xam ne ñoom moom la ñuy génnee mooy maanaam ay yokkute la rek mais lépp na basé wu ca la nga xam ni moom kon war nañ mën a toog di diisoo di saafonte pour mën a jox sénégalais xam-xam parce que jamono ji nii ñu si bëri si réseau sociaux yi la ñuy jàngee mooy maanaam dañuy toog dinañ leen déglu pour xam lan la yàlla wax. mooy maanaam ñoom ay jottalikat lañu mooy maanaam ñoom ay géwal lañu dañuy jottali ce sont des griots mais tey jii nii bu amee divergence si ñoom nga xam ne nee nañ xam nañ léegi la majeure partie des sénégalais yoo xam ni ñoom xamuñu si ñoom la ñu mën a jàppee est-ce que ngalla waaye du ñu réer est-ce que du ñu est-ce que waruñu ñu wax li nga xam ni moom la Coran bi wax est-ce que waruñu jottali li nga xam ni moom la yàlla wax. parce que maa ngi répété depuis ma nekk xale ba kañ may toll nii damaa dégg ñu ne Coran bi benn wax la am amul ajournement amul mise à jour amul dara li yàlla wax leer nañ benn wax la loolu lañu war a def te dafa am ay questions yoo xam ni moom laa bëgg a poser ci li nga xam ne déglu naa ko bu baax ci interview bi nga xam ni Ahmed Khalifa Niass amal na ko fële nga xam ne moom moo di si Seneweb première question bi mooy. imaam amul droit daganal sëy mooy maanaam imaam jiite jumaa rek dem ñibbi la war a def bu fekkee ni Ahmed Khalifa Niass wax na loolu kon la majeure partie des sénégalais yi nga xam ne ñu ngi sëy ak seeni jabar jàpp ni dagan na kon si njaaloo lañu nekk question beneen question bi nga xam ne moom laay posé mooy tey jii nii bu fekkee ni ñaari nit sëy nañ mooy maanaam wax ma sëy ñu takk leen de ñu sëy maanaam ñu am rapport pour muy leer la fekk ñu am rapport ñoom ñaan ñépp ñu joxe seen consentement kon ça veut dire que ni ñooñ noonu mën nañu wooyee seen boppu jëkkër ak jabar buñ ci amee doom xale boobu noonu mën na donn bàyyi ja question la loolu la Ahmed Khalifa Niass wax su ma juumee ngeen corriger ma wala bu fekkee maa ko mal interprété ngeen corriger ma dernière question mooy bu fekkee ni nit dafa violer nit wala dafa dem sekk ak rapport ak jabaru jàmbur ba mu jëlee ca ëmb bu ñëwee fëgg bunt boobu noonu ki nga xam ni moom moo di jëkkër ba surtout fa nga xam ni moom moo di njaaloo maanaam jabaru jàmbur sëy ak keneen kooku mën na ko ubbil bunt bi kooku dugg tudd doomam xale boobu noonu ëllëg ci biir mën na doon baayam mooy ki nga xam ne moom moo ko tudd ki nga xam moom moo violé woon wala ki nga xam ne moom moo sekkoon nag jabaru jàmbur te loolu man su ma juumul njaaloo la ma dégg oustaz inaan Ndaw wax benn affaire ne képp koo xam ni doomu njaaloo nga comme moom ni mu ko woyee doomu hors-jeu doomu njaaloo nga munoo donn sa baay léegi question yi nag mu nekk ñaari mag ñaari borom xam-xam yoo xam ni sénégalais yu bëri dañuy sàkku si ñoom xam-xam tey jii nii buñ tollee moment boo xam ne ñoom ñaar ñu ngi werante si loo xam ne loolu la yàlla wax may poser sénégalais yëpp question may poser borom xam-xam yëpp question ban moo ci réponse bu juste bi maanaam tey jii nii man mi nga xam ne takk naa sama jabar si farata yàlla sunna su Muhammad ca jumaa ja ab imaam taqal ma sama jabar. damay laaj ndax man maa ngi njaaloo wala njaaloowuma te bu fekkee ni man damaa njaaloo kon beaucoup de sénégalais ñu ngi njaaloo ba pare mu jël li nga xam ni moom moo di concubinage mooy maanaam ñaar ñi ñoo xam dañuy dëkkaale l'essentiel ñoom ñaar ñu am li nga xam moom moo di consentement sëy ñaar ñooñu ñoon la jël mu daganal li nga xam ne moom moo si mooy maanaam bu fekkee loolu rek kenn ki mën na wooyee keneen ki jëkkëram keneen ki mën na wooye keneen ki jabaram léegi tey jii nii man bu fekkee chaque fois su ma demee si benn jigéen mu d'accord ak sëy ak man tëdd ak man kon xanaa kon ay quinze jabar laay am question boobu noonu laa bëgg poser su fekkoon dama dem di taxawaal di tàmbambaal comme góor yi nga xam ne dañuy dem fu nekk di tàmbambaal wala jigéen yi nga xam ne dañuy mbaraan di dem fu nekk di ko joxe xanaa jigéen yooyu noonu kon léegi am nañ ay quinze jëkkër wala ay vingt jëkkër góor yi am nañ ay vingt jabar wala ay trente jabar en tout cas gars yi vidéo bi def ma ko pour ŋàññi pour weddi wala pour leneen ay question la te bëgg naa sénégalais yi nga xam ne am nañ xam-xam wala képp koo xam ni mën nga poser question tamit si suuf nga poser ko si commentaire yi ngeen wax ma aussi seen seen xalaat en tout yi loolu moo nekkoon video bi ñu joxante daje si mois de mai bi chaque mercredi dinaa dugal thème yi nga xam ni moom laa doon def si wàllum sëy comportement yi respect góor nan la war a doxalee jigéen nan la war a def yooyu yëpp dinaa ko indi di ngeen gis chaque fois ajournement benn thème laa indi ma waxtaan ak yéen si vidéo boobu noonu chaque samedi incha allahu rabbi dinaa leen may li nga xam ne moom moo di ah le cas de. le cas de mooy li nga xam moom mooy comme bi may def mooy Gucci yeeg Versace wan leen un peu marqué ak yenn entreprise yu ngande yi nga xam ne ñëpp ñu ngi rêvé ak yenn personnalité yi nga xam ne nit ñaa ngi rêvé mel ni ñoom naa leen defal li nga xam moom moo di ay documentaire ay genre euh, explication léegi trash yi moom wala polémique yi moom bu ma sentir rek dóor ko en tout cas yi loolu moo nekkoon vidéo bi ñuy joxante daje si beneen vidéo King wes la woon ak yéen wasalaam. West Show let's go nañ ko tëgg after coole ya oh, aya si matadi kasaramara awaga si matadi kasaramara oh, aya si